ci seen tur euh, ak seen sant euh, man nag xëy na F24 euh, daf ma jagleel ma wax tey parce que gis ngeen ne ci tomb yi F24 di waxtaanee tey bokk na ci situation bi et suñuy mbokk wax nañ ci bu baax a baax man ñu jagleel ma ndaxte loolu mooy gis-gisu f quatre tamit wax ci situation askan wi. ndaxte boo départul ci situation askan wi doo xam lan moo jur li ñu fi waxtaanee yépp depuis tey si suba doo xam lu tax réew mi toll fii situation askan wi nag bokk na ci li ko màndargaal ñu xëy tey suba teel dégg ne ci benn commune ci benn dëkk bu ñuy woowee Taïf am na suñu mbokk doomu Sénégal boo xam ne dënn da ko rey foudre dënn mooy foudre dënn ci wolof dënn mooy foudre ci wolof dënn da ko rey moom ak i fasam ñu ngi toll 63 ans après li ñuy woowee indépendance dënn di rey doomu aadama fii ci Sénégal démb alxames nawetu 2023 bii bi mu commencé ak léegi dënn yooyu rey na ca Bakel rey na ca Goudiri rey na ca Tambacounda rey na ca Koumpentoum démb mu rey ci Taïf f di jaale waat mbokk ñi nga xam ne dee nañ ndax dënn yooyu waaye luy wax ji yàlla na leen yàlla yërëm luy wax ji yàlla na leen yàlla xaree aljana waaye lan mooy wax ji wax ji mooy gouvernement du Sénégal ak président Macky Sall nañu wax fan la xaalisu paratonnerre yi nekk nañu génnee xaalisu paratonnerre c'est parce que paratonnerre amul moo tax suñu ay mbokk Sénégal di dee comme ay weñ comme ay yow comme ay melentaan ndax lan dënn ndax lan dënn génnee leen xaalisu askan wi te dugal ko ci yitte askan wi mënul am ñaari Sénégal Sénégal ñoo xam ne dañuy dee ndax dënn xëy na lu ñu xamul rek mooy ndax Fatou ndax Doudou ndax Mohamed ndax Marie ndax Jean lay dal waaye mënoo muusa ko waane ba nawet ndax ñoom dañoo dëkk yeewoo juddoo ca kaw ga ñuy dee ndax dënn génne leen xaalisu paratonnerre yi génnee leen ko ci seeni lal génnee leen ko ci seeni armoire génnee leen ko fi ngeen ko dugal ndaxte xaalisu askan wi la bu ñu buggee comprendre lan moo tax askan wi mer lan moo tax askan wi yaakaaram tas ba ñuy jël gaal mais nga dëkk Goudiry dëkk Tambacounda at bu nekk ñu naan diw dënn nawet bii di ñëw boo deewulee ci nawet bi nawet bii di ñëw yow la naka ngay bëgg a toog ci gox yooyu ci dëkk yooyu ci taax yooyu enfin ca euh, ca dëkk kaw yooyu ca Sénégal googu même boo deewulee ci géej di nga dee ndax dënn dina la rey euh, li màndargal tamit euh, nekku na askan wi mooy coow li lu muy bari bëri bëri yëpp soble bi tey laa ko jënd sama boutique koñ juróom benn fukk lay jar kilo sama boutique koñ te dëkkuma Almadies dëkkuma Plateau waaw policier yi may topp nag xam nañ fi ma dëkk ak gendarme yi waaye dama bëgg wax ne dëkkuma foo xam ne xel war na mun nangu waaw trois cent francs laa ko jëndee askan wi sonn na askan wi sonn na mille deux cent la kilo juróom benn fukk laa ko jëndee tey bi may ñëw fii waaye du soble bi rek de courant bi damm nañu tay nañu ci courant bu cher ñu ñuy làkk ay daadaa askan wi sonn na te F24 mu ngi exprimer sa solidarité au peuple sénégalais ndaxte kaso yi torture yi arrestation yi benn la ci coono yi nga xam ne président Macky Sall ak gouvernement am teg na ko askanu Sénégal waaye yeneen coono yi bokk na soble bu cher la cherté de la vie courant bu cher balaa maa de ñu lay expliquer explication yoo xam ne mais dara du ci dëgg lu dul yokk nañ courant bi lu dul nee nañ depuis janvier dañuy supprimer subvention bi askan bi sonn na ñun li ñu bëggoon dégg mooy ñun waa F24 mooy ñu ne soble bu accessible restera à la loi et non ñu ñuy jaay di ñu menacer di ñu toiser avec un ton arrogant force restera à la loi ñun soble restera à la loi la ñu wax ñun un courant accessible une électricité accessible à tous les citoyens sénégalais restera à la loi la ñu bëgg et pas fii di ñu jaay doole te léegi ngeen dem ndaxte yàlla rek moo dul dem di ñu ah di ñu toiser naan ñu ay force restera à la loi mais force restera à la loi def lañ ko ci cherté de la vie def lañ ko ci marché bi def lañ ko ci ci xëyu ndaw yi def lañ ko ci paratonnerre yi def lañ ko ci delloo si yaakaar ngir ndaw yi toog fii et eh bañ a jël gaal di dee océan Atlantique désert du Sahara ak euh, euh, ak ñoom seen euh, bokk na tamit ci li màndargaal coono askan wi et le F24 est solidaire da askan boobu suñu ndaw yi nga xam ne mu mel ni épidémie ñu ngi jël gaal rek di jël gaal rek di dee rek moo tax ñuy profité waat ci occasion bi ñun waa f di jaale waat suñu mbokk waa Fass Boye di jébbal suñu njaal suñu mbokk waa Fass Boye yàlla na leen yàlla yërëm yàlla na leen yàlla xare aljana waaye nag di jaale mbooleem dëkk ak citoyen sénégalais boo xam ne mbokkam gaañu na ci mbëkk mi mbokkam gaañu na ci émigration euh, clandestine bi ah, euh, plutôt émigration irrégulière pas clandestine parce que doomu aadama mun nga dem fu nekk c'est un droit sañ-sañ la foo munti nekk ci àddina bi nga dem fu la neex ça ne peut pas être une activité clandestine mun nañu wax nag irrégulière mais pas clandestine moo tax même ñun mots yu ñuy utiliser nañu xoolaat bu baax dem ak dikk mënul nekk une activité clandestine elle peut être irrégulière ndaxte xëy na sa dugg ci réew mi dëppoowul ak yoon loolu du clandestine irrégulière bu lañ neexee ñu wax illégal Euh, euh, béykat yi sonn nañu nappkat yi sonn nañu jaay nañ géej gi béykat gisul engrais gisul jiw gisul matériel agricole malgré ñu naan xaw ma cent milliards pour campagne agricole bi gisuñu dara ndaxte boo demee ci commune yi dañ lay naan wala ci dëkk bi wala ci commune bi da dégg ñu naan juróomi machine u njiikaay la ñu séddale ci commune bi juróomi machine u njiikaay loolu tappale la munoo wax ne joxe nañ joxewuñu wuñu béykat gisul matériel agricole gisul engrais gisul jiw fukki kilo ak ñeent jiw enfin gerte lay wax parce que rënd la mooy li béykat yi wooyu rënd soos la waaye du semence certifiée dangay gis gerte bi mu damati ñu naan lii mooy jiw c'est pas vrai rënd la ñu séddale maanaam soos soosu maafe la ñu soosu maafe la ñu séddale doom béykat gisul dara loolu moo tax ñuy jël gaal Euh, lii nag dégg nañu itam gouvernement bi euh, dem Touba ne dafa am ay acte de sabotage yoo xam ne jubluwaay bi mooy ndox bi bañ a jàll dugg na fi génn fii ñu ne xaw ma président Macky Sall APR ñoo deful seen liggéey gouvernement bi nee na askan wi képp ku gis kuy def acte de sabotage ci kanu yi lu ñëpp bokk. na ko askan wi boole ñun de F24 ñu ci ñu yàq alalu mbooloo d'accorduñu ngir ñu salfaañe alalu mbooloo ñu ngir ñu taal alalu mbooloo waaye lenn rek la ñuy wax yéen gouvernement bi li ngeen war a njëkk wax mooy li ngeen di wax askan wi ñu boole ñii di yàq commencé leen ko ci yéen boole leen seen collègue directeur ak ministre yuy sàcc suñu xaalis foofu la war a commencé ndaxte l'impunité des grands entraîne l'incivisme de petits li ngeen di diggal askan wi commencé leen ko yéen xaalisu mbas xeexu mbas bi ñu sàcc ba tey rien ay bu nekkoon Abdoulaye Tine ay bu nekkoon Fatou Blondin ay bu nekkoon Thiat waxatuñ ko ay bu nekkoon Guy Marius Sagna ay bu nekkoon Mamadou Mbodj béy di sama tatarita bi nekk sama ginnaaw ak ñoom seen ay bu nekkoon ñun ay bu nekkoon Aliou Sané doo fanaan sa kër waaye trois ans depuis mbas mi déggu leen kenn jàpp nañ ko déggu leen kenn enquête nañ ko ah donc ñoom nañ ko commencé seen biir nañu commencé d'abord di dénoncer ministre directeur ak ñoom seen yii di sàcc alalu askan wi di tas yaakaar alors réew mu mel nii réew mu mel nii liñ fi wax yépp askan wi di ko dund mais réew moomu askan wi mënul ñàkk fippu askan wi mënul ñàkk organiser marche mënul ñàkk organiser manifestation mënul ñàkk méttitlu ak naxarlu déedéet mënu ko askan buy dund coono yi ma lim nii et la liste est loin d'être exhaustive mënul ñàkk meññal ay Abdoulaye Tine yu leen di waxal ñoom naan Sénégal gii baaxul dañoo bëgg beneen Sénégal askan boobu mënul ñàkk meññal ay Cheikh Tidiane Dieye ay Fatou Blondin ay Mamadou Diop mënul ñàkk meññal ay F24 ay Y'en a marre mënu ko mënu ko ñàkk meññal ndaxte partout où il y oppression il y résistance il y a aspiration à autre chose fépp fu nooteel am askan yooyu ñuy noot dañuy jur ay jàmbaar dañuy meññal ay jàmbaar pour génn ci nooteel googu loolu moo jur Y moo jur F24 moo jur Pastef wax ji nag mooy président Macky ak ñu ñoo àndal bëggul ay F24 bëggul ay avenir Sénégal bi nu bëgg bëggul ay ma parti euh, nangam bëggul ay Y lii mooy wax ci lii moo yóbbu suñu mbokk yi kaso ba ñu toll si junni ak juróom-benn fukk ak ñaar ëpp na ko weesu na ko ndaxte sympathisant yeeg ak ñoom seen ak ñi nga xam ne xëy na amuñu tur ni man siwuñu ni man ndeysaan ah lii la wax ne lii moo jur résistance bii et tout peuple opprimé résiste loolu c'est une loi universelle ba pare jur ay jàmbaar yu góor ak yu jigéen yiy nekk seen porte-parole yu leen di xeex pas yu leen di xeexal sax mais yuy jiite xeex bi nekk état-major mi xeex bi lii la Macky sàll bañ la bëgg a arrêté moo tax lii moo jur PSE plan Sénégal emprisonnement lii moo jur PSE président Macky Sall plan Sénégal emprisonnement plan Sénégal dissolution de parti politique depuis PAI man laa gëj a dégg dissolution boobu juddooguma sax PAI dissolution de parti politique lii moo lii moo jur El Malick bracelet électronique Wali Bodian bracelet électronique Abbas mais liberté provisoire may mën a jëy kaso Falla Fleur kaso Fadilou kayta kaso diw contrôle judiciaire diw liberté provisoire diw bracelet électronique lii moo jur emprisonnement des libertés et des droits individuels et collectifs te lii mënul wéy lii mënul wëy moo tax xeex bi mënul ñàkk wëy F24 nar si am taxawaay ñun ñëpp ñu war si am taxawaay dégg ngeen plan d'action bi ñun ñëpp nañu taxaw tem jërë ngeen jëf